bokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziar maa ngi leen di ndokkeel ci yiw yu bari yi daje ci jataay bi nekk ci weeru ramadan nekk ci néegub yàlla ni ko sëriñ Maam Balla waxe nekk ci Tuuba nekk ci kër Cheikh Mamadou Bachir ñuy nuyu mbokk yépp tàmbalee ko ci al imam sëriñ Mahmoud Abdullah di nuyu mbokk yi fi teew yépp waaye di siyaare bu baax Mawlana Cheikh Mouhamadul Muntaqa di ñaan sunu boroom gën koo sàmm gën koo dëgëral gën koo dooleel mottali ay mébétam mottali ay naalam ndax su àggee rek diine jàkk su àggee yoon wi defaru yàlla na ko yàlla jàppale ñi ngi siyaare bu baax akademiyatu minanil baqil qadim ci njiitu sëriñ Cheikh ak sëriñ Muntaqa ak mbokk yi ñu ko seqal yépp di ñaan sunu boroom dooleel leen ndax ñi ngi liggéey liggéey bu ama am solo ci sàmm ndono li ci tasaare xam-xam xam-xam yi nga xam ne ñi ngi koy def ci ndigalul kilifa yi nii sëriñ Mame Balla waxee tomb biñ sàkk mooy ñu waxtaane am solo gu nos ak nosu am solo ci yoon wi tomb la boo xam ne nag ba ma ko mas naa koo waxtaane Daarul Muxti ci muassasatu Al Wafa ci weeru koor bu ma juumut mille trois cent trente-deux la woon ba baag ren la ci fukki at gis may sant yàlla baax nag ndax bari na yi ma jëtu doon jàpp ne lu ñu war a nos la mel ne ne lu ci bari sóobu nañ ko ci yoonu nos lu ci bari it bi Cheikh Mouhamad Muntaqa mii dikkee xafisahullahu taala wa raa yëg nañ ne teg na ko ci yoon woo xam ne bu buñ ko ci wàcc wut nosu dana am te kon lépp dana jàkk insha allah tom boobu la mbokk yi bëgg ñu waxtaan ci fàttalante ci ndax day mbir moo xam ne lii si Mame Balla wax lu am solo la ku ne ci kanam loo lu sooxee ci saw doxin rek jeexital ci ñi ci des te loolu yàlla dogal sëriñ bi moo ne ci kanam loolu yàlla dogal kon lépp lu ci aju ci moom laal ko di mel ne mu war a mel dana am solo lool nos nag danañ waxtaane solo su mu am wala boog mooy lan te sëriñ Mame Balla bi muy tàmbali wax na ko mooy teg mbir yi fi ñu war a teg yi war a ànd ànd ni ñu war a ànd yi war a jiitu jiitu yi ci war a topp topp dëgg dëgg bu ñu wax nose mbir mooy loolu loolu nag mbir la moo xam ne mënta ñàkk mënta ñàkk diine ji moom la indiwaale sëriñ bi it moom la sose yoon bi maanaam lu safaanoo ku nosu rek bidaa la ci yoonu sëriñ dana ci ñëw insha allah kon ma jàpp ne waxtaane ko am na solo ndax bari na lu desee mel na war a mel fekk du ay jumtuwaay yu manki wala xam-xam wala man-man waaye ñàkk nose mooy tax melu na war a mel moo tax mu jàpp ne tomb bu am njariñ la bu ma te waxtaane solom nag lañu njëkk wax am solo gu nos am solo am na solo ndax mooy sunnatullahi fi xalqi yàlla deful dara ci fawdaal bind gi bind jaamu yàlla yi lépp ci nose la ko bind muy xayawanaat yi ak jamaadaat yi yépp maanaam doomu aadama rek ku ko xoolee ni ko yàlla bind ni muy doxee ni muy dundee deretam ak yim àndal xam nañ ne nos bu jéggi dayoo la nos boo xam ne li nit ki doxee lu ci ëpp mbaa mu yées mu feeñ ci moom biddiw yi asamaan si noonu la mel weer weeg jant bi kenn ku nekk nos bi ngay dox boo ko wàccoon sebre mën nañu wax ne àdduna tukki kon àdduna ci boppam ci nos lay dox nit ñi ci ay nos lañuy dox yàlla it ci nos lay defale mbiram moom mooy ki nga xam ne moom moom lépp mooy koo xam ne laa yusalu amma yafaal li muy def kenn du ne ko lu tax waaye teewul daa daa teg boppam nos di nos ay mbiram lenn lu nekk mu wutal ko ab li ko def mënoon naa jékki-jékki di bind ñëpp ndax innama amruhu ida arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun waaye teewut ba muy bind doomu aadama kenn la bind muy aadama noose ko noo xam ne ca ca moom bind ci moom xawa ñoom ñaar ñu mu dëggal leen ñu ànd loolu am nos la ci koo xam ne sañoon naa jékki-jékki sotteenoo ñëpp ci benn jamono ci benn barab nos la ba tey am na solo ndax lépp lu am ndam lu ñuy def mu am ndam ci àdduna ak nosa ko lal lépp lu ñuy liggéey ay nit seq ko ñu dem ba am ci lañ bëgg daa fekk ñu nos jotaay bi ñu toog misaal lañ am na ñu ne ci ginnaaw nos ba mu mel ni mu mel ñu mën a toog di wax am ñuy déglu xëy na di jariñu te kenn du lool bu nosu amutoon dara mën naa ci maanaam kon lu am egg am na jaax rek nos moo ko lal moo tax mel noonu bokk na ci soloom day yombal muhimma day tax li ngay wut fi nga bëgg a jëm nga mën fa àgg ci coono yu gën a néew ak waxtu wu gën a sakkan ak nag meññet mu gën a bari loolu bokk na ci solo su nos mbir am dana tax li ngay wut boo ko nosee danga ci am lu bari mën na am loo foogutoon te doo ca daj coono bu bari te mën naa amee temps ba mu jël du bari te boo ko nosutoon mën nga caa def waxtu yu du jeex du sotti mën nga caa def coono yu du jeex du tax nga am lan ci bëggoon kon lu am am solo la am na solo ndax l'islam ci boppam ci nos la ko yàlla tabax mbooleem li ne ci biir lislaam ku amuk seet da nga xam ne lépp lépp am nos la nañ tàmbalee xool jaamu yàlla julli bi ci gën a màgg lu gën a nosu amul yàlla da ko wutul ay waxtu boo xam ne soo julli wante waxtu woo jotut yàgg ko julliwul yéen a yem wutal ko ab lim rakkaab julli gu ne mën la nangami rakkaa la sañu koo yokk sañu ko wàññi waxtu yi nga ko waxee sañu koo yokk sañu ko wàññi sant la nga ñëw ci jàkka yi wutal la imaam imaam joo xam ne dañ laa sant ne la donte yaa ko raw yaa ko lépp sa ñëw sëgg ci sëggut sa ñëw waxte waxut boo ko njëkkee kàmbar wala nga njëkk koo sëlmal wala nga dafa doo ko sax sa jul yàqu mbokk yi loolu mooy nos yem leen ci ginnaaw lu mu def nga def ko ndax innama ju'ila al imaamu li yutamma bi kon julli day jàngal am nos nga xam ne julli ni buñ génnee ci jàkka ji waroon nañoo xam ne seen adduna jëpp noonu la war a mel yow man ngaa raw fuuf limaan gën koo xam li muy def waaye nag da nga topp ci ginnaaw ku la neexee ku la naqare boo topp ci ginnaawam sa julli du baax defal négal bu mu def nga door def te it xool ni mu defee nga defee noonu loolu mooy xolub nos boo demee ci asaka du caa génne saa yu la neex nga koy joxe wala nu la neex wala ku la neex daa am looy joxe am waxtu boo koy jox am na koy joxe bu ci benn manqué warteef woccigu la kon yàlla nos na suñu jaamu yàlla bëgg ñu jaaree ci nos suñu dund nosal ñu koor ramadaan nii weeru baraxlu loo farlu farlu boo ko woroon taxut nga yor taxut taxut àqi ramadaan wàcc la warteefu ramadaan du la wàcc te ramadaan ñëw waxtu yi ñuy woore doo këlkin ne seet naa ko fukki waxtu ñett la damay tàmbale heure sàngam ba heure sàngam déedéet fi yàlla bëgg fi ngay tàmbale yam fi mu la yam la nos bi àgg na ci bu dog jotee ku dugul nekkatoo ci ndigal bu dog jotee ku dugul nekkatoo ci ndigal loolu ak nos la mbokk yi goo xam ne mën nañ koo gis baax a baax ci biir diine ji aj Makka nag moo gën a firndeel nosu benn barab boo xam ne ay millions yi nit ñoo fay daje di def jaamu yàlla goo xam ne ñoo ko bokk di ko def bu nosu amutoon dara du sot mbokk yi nañ jeneer bu fekkoon te ne Kaaba ga dañ koy wër nu neex waaye mu wëree ko nit ñi rajaraloo ko mën nañ faa toog fukki waxtu ak nangam wala ñaar fukki waxtu ak ñeent kenn du séq ab jéegu te it waliyasu billah lu ne mën na faa waaye li mbooloo mi bari bari nos bi tax na ñoo bokk nuñu jóge bokk nuñu jëm diir bu gàtt ñëpp def seeni farata loolu nosu ko waral nosu ko waral naka noonu lislaam ba ci jihaad bu ñuy xeex dañ ko nos bu jamono xat-xat ñëwee ñu mën a boole ndigal yàlla yi ak bàyyi xel jamono ja loolu am nos la buñ doon jihaad di xeex ba mett julli jot farata la jihaad ji farata la nos mooy tax yépp mën a sotti moo tax ñu ne nañ xaaj mbooloo mi ilimaan jiite xaaj bi benn rakka wala ñaar rakka ñi ci des ne ci terrain ba di xeex bu sëlmee ñoom ñu dem fekk ñu wutu leen bu fekkee waxtu wi laaj na loolu am nos la boo xam ne war na ci jàng ne kon jamono ju mën a xew bu fitna dikkee it war nañoo mën a dëppale fitna jooju ak ndigal yàlla ñaanul baax Cheikh Mamadou Mountakha ci taxawaay yooyu lu la wane bi mbas bi duggee nañ jaamu yàlla waaye nañ moytu loolu am nos la fexe ba ndigalu yàlla am waaye nag li ñuy ragal mën ko moytu mën si na ko boole ndax buñ ko nosee mën a nekk jëf leen loolu jaamu yàlla yi dox diggante jaami ak seen borom waaye jëflante diggante nit ñi denc soxna fase soxna loolu lépp lislaam da ko nos boo xam ne buñ ci tënku woon jàmm rek ay am ci ak ci dund maanaam sëy yu bari yi tas ñàkk sàmm nosum lislaam ma ko waral waaye fi lislaam bi jaarlu ngir takk soxna nos boobu boo ci solo insha allahu taala boo amee soxna boo tuut kenn ci yéen génn àdduna moo leen tàggale nos bu rafet la boo xam ne li nga war a bàyyi xel lépp da nga ko bàyyi xel mooy tax doo ca jot di rëccu doo ca jot sa yaakaar di tas ndax jaar nga fi nga waroon a jaar bu tas di amit fi lislaam jaarlu ku fa jaaroon tas mën na am bu amee lu mënta ñàkk lay doon kon nos na nosal nañu suñu dund nosal ñu suñu jëflante ba ci bu nit faatoo alalam bi mu fi bàyyi ni ñu koy séddalee lislaam nos na ko ci anam goo xam ne mësi su ko ci jiit di bàyyi xel lool ñi gën a aajowoo ñu ëppale ci alal loolu nosu yàlla la boo xam ne dañ koy jàng ne suñu adduna ji it noonu lañ ko war a nosee adduna ji it kilifteef noonu la mel borom bi indi nañ ci adduna am lu fi nekk luñ bokk mbir nag bu ko nit bokkee ñëpp mbooloo bokkee ngir ñu mën ko bokk jariñoo faaw dañ koy nos am ko jiitu di digle ñuy topp moo tax suñu borom santaane am kilifa ya ayyuhal ladina amanu ati'u allaha wa ati'u rasula wa ulil amri minkum di am kilifa ñuy jiite ñuy topp ci seen ginnaaw waaye bu loolu amutoon bu mbir nekkee ni ñëpp soxla ko ñëpp daw jëm ca mën naa am kenn du ci jot kon noso tax ñu mën a jariñoo mbir yi mën a ànd di dund ci kaw suuf ba tax yàlla kilifteef ñor ko lool yonent bi salaam nee na na ngeen dégg ndigal te di ko topp ak ku leen mën a jiite lu ngeen lu mu xeebu xeebu ci seen i gët waaye mooy seen jiit fii ak digalu leen lu yàlla tere ànd leen ak moom aleykum bi sam'i wa ta'a wa in ta'ammara aleykum abd wax ne ñetti nit bu ñu àndoon di tukki ñetti nit nañ jël kenn def ko amir mu jiite mu jiite yoon di digle di tere lu ñu def laaj ko xalaat mooy mu joxe xalaat ida kuntum thalathatan fa amiru ahadakum kon mel na ne l'islam mu fenn fu mu bëgg ak désordre li ñuy wax fawda nga xam ne kenn doon dara lu waay bëgg daman ko def ñetti nit ñu àndi tukki na am ku nekk njiitu yoon bi booy génn na nga ko tàggu boo dikkee ne ko ñëw naa loo bëgg a def laaj ko ci xalaat bu la joxee nga def ndigal loolu mooy kilifteef kon rawatina kër rawatina mbooloo mu ànd rawatina ab dëkk rawatina am réew mënuñu ñàkk kilifa ndax xëtt ab nos la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla yónni woon muy jëmmal si ndigalu yàlla yi ci nos mbiram la ko tegoon woote bi da koo nosoon ba muy gàddaay da koo nos ba mu nekkee Madina dafa nos léppam da koo nosoon ndax ci nos ci la mbir du sottee gàddaay yonent bi sallam jóge Madina jóge Makka jëm Madina bu nosu wutoon nosu gu tegu ci yoon mën na am du am ndam waaye pexe yam ko booleel jaar fi war a jaar dañu nekk ci séeréne jo xëyul rek jóg daal di wuti Madina mel ne Touba mu jëm Darou Moukhty wala mu jëm Louga daal soobu yoonu njaareer ba sori door a jàdd nag nday jooram wéy loolu am nos la fexe ba te say say noonu fexe yi lay lal mën te mucc ba dem ci jàmm loolu it jàngal nañu ko ci siira ak gàddaayam bu sell googu ak lim doon jëflanteeg nit ñi adduna gi it dañoo sant ñu nos ko maanaam suñu dëkkuwaay yi ñuy dëkk bu fekkoon tane maanaam da ngay ñëw ci dëkk bi rek foo fu neex waaye samp këram dund ga dana naqari lool waaye dañoo xotti ay mbedd kër yi am fu mu tàmbalee am fu mu yem bàyyi ay pénc ngir daara ngir fajukaay ngir jaamukaay yàlla ngir ngir ay ja loolu nos la buy tax ñu mën a dund ci jàmm waaye su yooyu dañoon tey dund gu karaj la ñuy dund barab yi mu amut dund gu naqari moo fa nekk ndax ñàkku noos tey yoon yu ñu jaar di dox bu fekkoon dañ ne yoon wi dañ ko def ba mu jekk waaye nu neex waaye nga ci jaare mën nañoo yendu fii kenn du dem kenn du dikk waaye dañoo nos yoon wi kuy dox na nga jaar sa wetum nday joor kii dem kii dikk jaar wetu càmmooñ luñ bari bari kenn lal sa morom saa bu ngeen gisee jafe-jafe am ci tëli bi dañoo wàcc nos bi da ngaa jaar fa wër te jaar wala ñun la fii kat daa am lu fi ne ba boo fi daw dawal ndànk ndax doo seen sa kanam lu bari wala bu fi double oto nga xëtt nos ba jaay yi am waaye ñaare néew na jaay yi di am tëdu xëtt ab nos moo ko sabab kon mbokk yi loolu mel na ne day wane ne nosu lu am am solo la ci àdduna ci boppam dana taxit bu ay ay aajo dajee ñu mën a xool bi gën a yitteel ñàkk nos dana waral sàggane ay awluwiya day gis barab boo xam ne dañuy defar jàkk rek koñ bu ne ñu dafa jàkk boo doon wàññi dafa nekk ci daara du bari te ñi jóge ci daara yi ñoo mën a def ci jàkk ji lu jàkk kon jiital daara ci jàkk mu ëpp solo waaye loolu ci nos lay amee kër yëpp yëpp ñu dëkkiku bàyyiwuñ benn espace bu dëkk bi mën a noyee loolu ñàkkum nos la bu tartan amee danañ xam ne bàyyi xëtt nos bi war bokk na ci waral na jafe-jafe dund bi kon loolu it dañ ci jàng yu baree bari loolu bokk yi lenn la ci wane solo soo xam ne nosu am na ko solo ci diine am ko solo ci adduna ci boppam loo fi gis rek ñu mën koo jariñoo dañ koo nos teg ko ci aw yoon loolu nag ku ne ci noonu war na koo jaf yitteem tàggatu ci ndax lu ñuy tàggatu la boo ci xasee tàggatu foo mën a nekk yow bu nit ñi nosul da nga nosul day gis léeg-léeg daje yoo xam ne ñu yàlla tàggati loolu bu nit ñëy raj-raj looy doy seen mukk dañuy nosu tegu ci yoon loolu na li tax mat a waxtaane mbokk yi suñ fii dafa am loo xam ne dinaa ko faral di wax ci daara ji dongo yi ni ñun waa Sénégal jàngoro yi buuxante bëgg buuxante suñ jàngoro la te mooy safaaru nosu na bëgg buuxante mooy lan benn bunta ngi nii boo xam dañoo war a dugg ci biir ñëpp ñëpp kenn ku ne jàpp ne yaa war a njëkk dugg ñàkk nos lay yàgg ñëw benn barab mi boo xam ne ab lim bu néew ci ay nit ñoo fa xaj kenn ku ne jàpp ne ña ña cay nekk ca nga war a bokk moo tax jataay yi dañuy jógu rek yàlla tere bu leneen xewoon ñu war a jóg mucc dana jafe te li baaxoon jataay yu mel yépp di am ay yoon woo xam ne ku bëgg a jóg jóg doo jogi kenn doo jaar ci ko kenn doo yàqal dara kenn waaye dafa mel ni ñu bëgg booxante lañ ci fépp dañuy booxante te li koy waral dañuy ne ci barab ñu waxtaan ba noppi dinañ jóg ki gënoon a sori fu mu toog mooy bëgg a njëkk génn loolu bu amee rek nos xët te it boo gëstoo ba gëstu ko it bu njëkkee génn yi wutiwul daan daan daanaka mënoon naa toog ba ñu ko jiitu ñëpp génn mu génn ndànk ay daalam du réerum boobu du xottiku daraam du sikk te mu àgg ci jàmm waaye day mel dal mujj ci barab bi dal am na lu ci nekk dara jarul loolu bëgg buxante la ci jàngoro yi ñu war a jéem a saafara gone yar leen ci am na nit ñoo xam ne doo leen ci mës a seet barab bu ñu nekk dañuy toog ba ñëpp jóg ñu dog ndànk te it fañ jëm kenn du leen ko jiitu ñaare. ko jëru bëgg boo xante àgg na ci télé bii day gis koo xam ne xeli mi daw doxiw seen soxla su ko jar day àgg rek toog mënoon naa daw ndànk noppal yaramam noppal otoom noppal nit ñi mu romb nit ñi mi romb bu àggee àgg ci jàmm kon yooyu buñ buñ jëfandikoo am nosu bàyyi ko xel dana ñu dimbale bu baax a baax mbokk yi te loolu nag Mawlana Cheikhul Khadim radiyallahu anhu ci loolu la nekkoon wax naa sànq ne lépp lu safaanoo ko nosu du mbirum Sëriñ Tuubaa dafa nosoon léppam ndax daa gi xamoon gëmoon ne nosu ci diin la bokk tàmbalee ko ci ba mu dikkee jamono yàlla jox ko ndigal mu woote dañoon dafa nosu woote bi tàmbalee fi war a tàmbalee mooy jàngal nit ñi yee leen yar leen mu tër wut ay téere yuy jàng waajal ay sëñ daara yu ñuy yu leen di jàngal waajal ay barab yu ñu leen di jàngale lenn lu nekk fawda nekkutoon ci am jàngale kon dafa nosoon lépp te lu ci nekk fa mu ko waaje mooy fa gën barab yi mu tànnoon ngir jàng mooy barab yi gën jàngalekat yi mu tànnoon ngir jàngale ñoo ñi gën ndax ñoo mat lañ leen doye programme bi mu tegoo ni mooy bi gën ndax moom la jamono gënoon soxla gën ko aajo woo tànnal ñu it bu ñuy jàng lan moo gën lan moo gën a yey ci jiital lan lañu war a gën a fonk loolu am nos la ndax bagage yu bari ñoo fi dajaloo xëy na jot ci yëpp du yomb waaye ñu wax la yi gën ba nga tàmbalee ca foo mën a yem yem fa noonu la na soo woon tarbiya wut ay daara yoo xam ne dañ fay jàngale alquran ak daara yoo xam ne dañ fay jàngale xam-xam ak daara yoo xam ne dañ fay tarbiya ci biir tarbiya gi it ñi wuute xaala seen biir day wuute ñi toll ci tarbiya kese sampuñu kër duñ jaxasoo ak ñi samp kër ñu toll jàng alquran àggaguñ ci tarbiya duñ jaxasoo ak ñu yoosu foofa mooy ñenn ñu ne ñu teg leen fa ñu war a tegu di def ca ñoom lañ ca war a def loolu lu sëriñ bi indi woon radiyallahu ta'ala anhu nosoon lool it ay dëkkuwaayam ay dëkkuwaayam mën naa wax ne ñi ko jiitu ci nos dëkkuwaay taarix xamuñ ko dëkkuwaay boo xam ne boo dikkee dañuy ber boroom kër gi kilifa gi fi ñuy nekk ber soxna yi fi ñuy nekk ber dong yi fi ñuy nekk ber gan ñi fi ñuy nekk day am keesug sëñ bi keesug jigéen ñi keesug dong yi keesug gan ñi ndax am na ci ñoo xam ne seenu war jaxasoo gënu ci ñoom ñenn ñu nekk di yam fa ñu war a yam la war ci ñoom bu jotee ñu def ko ci ñoom loolu bokk na ci li sëriñ bi jàngale woon nose woon ko ay këram waaye am ay kër yoo xam ne it ci mën a nosam kër yu ne daa am lu mu ko doon jagleel Touba moo doon kër gu mag gi waaye xam nañ ne fii Daarul Minan kër la woon daan na fi ñëw am lu fi def si Daarul Rahman fii sëriñ sooy bu nekk kër la woon Daarul Quddus kër la woon Jamal Mustafa gi fu ci nekk am na lu ko sëñ jagle loon loolu am nos la am waxtu yoo xam ne bu jotee fa la koy defi loolu am nos la waaye bokk na ci ak mën a nosamit bàyyi xel diine ci léppam maanaam ñi sëriñ bi yaroon seeni dëkkuwaay saa yu duggee seen néeg booy julli xibla danga ko daal di xam ci saasa dañ doon daf dëkkuwaay yépp jublu xibla nga xam ne nu kër gi mën a bindoo bu ñu defar seeni néeg moom dañuy fexe ba néeg bi xibla lay jublu booy bund booy jul rek jëru nga laaj kenn ana xibla dëkk yi noonu lañ ko doon sànce day jublu xibla jàkk ji ne ci digg bi boroom kër gi wuuf ko ay mbokkam wër ko loolu sëriñ bi liggéey na ci liggéey bu yaatu donte am na fi loo xam ne mi ngi fi woon it waaye bu mu dikkee nos na ko gën koo dëppale ak diine ba nga xam ne tey dëkk boo dem ci dëkk sëriñ Tuubaa yi doone ana kër sëriñ bi bañ wàcc gudd nos bi kenn du laaj fan mooy kër sëriñ bi kër yi wër kër gi mën ngaa xam ne ñii lii lañ doon ci sëriñ bi loolu am nos la boo xam ne am na njariñ lool ci koo xam ne da ngay dox te bëgg a lijjantiku lijjantiku bu gaaw noonu la nose woon it xidma bi majaalaat yépp mu am ci ñuy xidma ndax yépp la nit ñi soxla yépp la nit ñi soxla fexe ba fenn fu am ñu fa ne di liggéeyal yàlla ci jaami yàlla yi ci foofu am ñuy jàngale am ñuy yare am ñuy faje am ñuy dundule am ñuy yeete di laa biir nit ñi kon fenn fu nekk waajaloon na nos ko ba nga xam ne nii lañ fa soxla lépp mën na fa am ba tey taalif ay téereem boo ko xoolee xam lépp da ko nos taalif nos ak dundam bokk na ci nos bi li mu waxoon ne at mi da koo séddale ñaari xaaj juróom benn weer yi mu ci tagg yonent bi sallallahu alayhi wasallam juróom benn weer yi mu ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxal tàmbalee muharram ba jumaatal axira da ci tagg yonent bi li tàmbalee rajab ba mujjug zulhijja da ci julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu am nos la noonu la ñu nosalam dund gi ba ba muy bëgg tabax lu jumaay Tuubaa mu ne nañ bopp bu leen joxee ñaar fukki juróom-ñett loolu bariwutoon amoon na benn benn ci seexam yi ñoo xam ne mënoon nañoo tabax jumaa ji waaye nos la bëggoon ba nga xam ne bu liggéey yàlla jotee kenn du ne bokkuma ca ñëpp war a am yiw kon néew ak bari du ci am solo ki barle ak ki néewle du feeñ ci moom su boobaa ñëpp a jariñu kenn du lool mu tegal ñu ci yoon woo xam ne bu ñu ko wàccul insha allah taala kenn du ñu jiitu kenn du ñu dimbulee dañuy dimbulee dañuy jiitu loolu sëriñ bi wane na ci ay bind yu bare bari yoo xam ne jëmmal na ko ci bari jëmmal na ko ci ak dundam jëmmal ko ci ñoñam ba fi barab yi mu nekkoon ak ñooñam ñi mu yaroon ba noppi ci ñoom ñi samp ay dëkk foofa dem rek xam ne la leen sëñ bi yaroon ña ngi ci bu baax a baax ma ngay meññ la war a meññ nga xam ne barab bi kenn du fi nekk nekk insaan koo xam ne aw kal la ngay doon koo gis rek am na lu am am na fu mu féete ak fu am fu am njariñ ndax am na lu lay def loo ko yaa ko man dañ la ciy def yow itam da nga yëg ne yaa ngi xidma ndax ci ci nga bokk waaye amul ñoo xam ne ñoom rek ñoo man ña ci di di di joxe ñenn ñi dañ du nangu ñëppay joxe ñëppay jël boobaa kenn du wax sama maa la gën kenn du wax sama maa la féete nangam da ngay yëg ni aw yaram ngeen wuy ànd di dund bu ci wenn manqué ñëpp loru loolu lañ si jàngaloon nos ko nos boo xam ne radiyallahu yàlla na ci yàlla fay muy loo xam ne nag dañ ko dafa dafa dafa aaja ñu téye ko sàmm dëgg la am na ci lu ñu sàmm waaye am na ci loo xam ne nag mel na ne mi ngi ruur kon yoonu murid soxla na nos Cheikh Mamadou Mountakha mi liggéey na ci liggéey bu am solo yenn yi mu sofe ko ci la ay kilifaam tàmbali woon ndax yu bare bari la bi ci jiitu daa ko wax mooy xilaaf ak sëriñ bi nekkal fi sëriñ bi liggéey féetu ko kaw jàpp nañ ni tey ki ëpp ku nit ñi di soxla mooy Cheikh Mamadou Mountakha ndax mooy sëriñ Touba taalibe yi soxla ko jullit ñi soxla ko ñi ci àdduna yi soxla ko kon àdduna ko soxla kooku nag nosal ko waxtoom dana am solo lool waaye da ngay seetlu ne saa bu génnee barab bi muy toog la fay dajaloo ci nit day ëpp mbooloo buñ toog bokk toog benn barab ñëpp soxla sëriñ bi ñëpp bëgg koo waxandoo seen soxla ci benn jotaay mën mënta sotti ñëpp di waxit nit ñi jëriñu mënta nekk te léeg-léeg sax nag day mel ne ñi ñu sant ñu nos ñoo yàqu nos bi ndax bu mbooloo taxawee ku ne naan noppi leen coowe gën a bari waaye day mel ne dañuy organiser waaye dañuy yàq fekk moom loolu it jàpp naa ne dimbale sëriñ bi ci nosal ko mu mën a jaxasoog nit ñi mën a jokkoog ñoom ci dal ci jàppandi lu lu ñu war la ñun ñëpp waaye su ne tëll fii kenn ku ne jàpp ne kenn warula caa jiitu loolu ñàkk nos la su génnee ñëpp di yuuxu loolu yoon wi xamu ko bokk yi dañu xamoon sëriñ bi day génn ñëpp ne teg ka anna ala ru'usihim at-tayr ku sëñ bi ne diw fi nga toog ngay toog xam ne ndigal mooy nga ne ci li ne sant fii wuñ la ñëw nekk gu ndigal ci yow amagul njariñ ci yow dafa mel ne nag bokk na ci noos bi tàmbalee xët fu ñu seen sëñ bi rek ñëpp màbbuuti ko da ngay dem ba àgg wutoo fa dara fekk yaa ngi boyal aw sas woo xam ne fa fa nga nekkoon am nga loo fay liggéey loo xam ne kenn wutuwu la fa boo ko bàyyee ginaawal ko kenn ko jariñoo kon nañu dimbali sëriñ bi ci nos jokkoo gi muy jokk nit ñi ba kilifa gu dikk mën a wax ak moom wax ju dal mën a wax ak moom ni mu ko bëggee ndax ku ne xam na yitte yitte ju kawe ji mu am bëgg a jox ñëpp seen aq boo ko boolee mbooloo moo xam ne ñëpp ñu ngi la tiim ku ne di wax fu fukki nit war a nekk fanweer nit ne fa dara du lijjanti mbokk yi kon soxla nañ ko nos lool ñun nag ñoo ko mën a def bokk na ci li ko waral sëñ bi kilifa soxla sëñ bi ànd ak mbooloo mbooloo mi jàpp ne seen kilifa dugg dañu fa war a dugg ñëpp xam na ne du noonu mën nañoo gunge sëñ bi. ba ci bunt bi kay ñu xaar ko mu gis kilifaam bu génnee ñu ànd ak moom dem buñ ko joxee ndigal mu jot li ñu ko waaye faaw ñu àgg bu sëñ bi toogee ñu toog ci wetam ku toog du doo bëgg a jóg loolu nos bu yàqu la mbokk yi Sëriñ Tuubaa tegewutoon ay mbiram noonu kon waruñoo ñongu ñun ñi ko fi nekkal ñuy jëflante ñoom ci lu wuteeg nam doon doxe soxla nañ ku ñu nosal am njàng loolu waxoon naa ko boobu waaye ma ngi sant yàlla baax a baax bu Cheikh Mamadou Mountakha ñëwee fekk ay way juram naaloon fi ay naal ak i kilifaam mu ñëw def yitteem ci àggale naal yooyu ndax bari na lu ñuy wax ni di ko jàmbat ci nos yeeg yi ñuy wax ni yépp bu mu jàmmaa Cheikh Ahmadul Khadim bii noppee insha allahu taala te dana noppi bu soobee yàlla ci ba dana saafara ndax ëmb na nosaale yooyu yépp insha allahu taala kon na ñépp ñaan mu àgg cheikh moom Mountakha ubbi ko ànd ko taalib yi lu yàgg bu baax jàpp naa ne lu baree bari dootuñ toogat di waxtaane tomb yi xanaa jàpp ne lu nekkoon asbax fi xabari kaana li doon nangam sangam mosoon na fee xew ay jamono waaye ab minbar la boo xam ne lu baree bari mën nañ ci taa jaare defar ko te sëriñ bank yoonu teg ko ci ay loxo yu wóoru ñu ci liggéey liggéey bu am solo loolu moom jàpp naa ne jër sa guddal ndax am nañ ci yaakaar programme yi ñu war a jàngale kilifa yi fi teew bari na ci loo xam ne ci seen loxo la nekk ña ngi koy saytu na mu waree liggéey ba ña ngi koy liggéey bu noppee insha allahu taala njàngum Touba ak murid gi wala réew mi ku soxla xam-xamu diine bu tegu ci yoon xam-xam boo xam ne bu na pay nag liggéey bu am njariñ nit ki mën a sàmm ngorom mën a sàmm diineem insha allahu taala danañ ko am ubbi ko ci àdduna mën a yóbbu njàngaleem sëriñ bi fépp jox ko ñu ko soxla woo ñëpp ñëpp ko aajowoo waaye am na ñoo wax ba tey xamuñu sëriñ bi am na loolu nag daara ji mel na ne taxaw na ngir sottal ko kon yàlla na àgg te yàlla nañ ko muurloo loolu soxla nañ ko baax a baax waaye soxla nañ ba tey nag ku ñu nosal suñuy jàkk jàkk yi bari loolu ci dëkk bi am na solo lool waaye nag laaj na nos ba ña fa war a ne di fa ne di def lañ war a def waaye jàkka jiit nag ñu di ko def fuñ ko war a def te nos mooy tax loolu am nga xam ne tey ku bëgg a jàkka am nga ñooy dem jox leen ndigal wala ñu laa jox ndigal dañ xool fi nga bëgg a def jàkka ji ndax jàkkaa fa yell wala leneen fa yell ndax nit ñi moom du baax lañ bëgg rek boo leen ne jàkk di baax na fi waaye ginnaaw jàkk sa réew fi wala du aajo fi man nga fay def daara wala man nga def ab fajukaay yaakaar naa mu ëpp njariñ su boobaa day doon aw yiw rek ndax ñii def yëpp sadaqa jaaree lañ bëgg yiwu fi des lañ bëgg seen ginnaaw te yooyu yëpp nag ay yiw des la kon buñ ko nosee danañ gën a mën a jariñoo dana taxit jàkk ji bu taxawee doon jàkk bi ma amal kalim ñu koy jaamu yàlla di fa dundal diine di fa dund diine waaye am na jàkk yoo xam ne tey julleeg sëlmal kese lañ koy def te jàkk nag doon doon loolu dong jàkk yun isa moo doonoon lépp moo doonoon majlis shura ba moo doonoon fa ñuy waxtaanee bu ñu dem ca guerre ba moo doonoon fa ñuy dimbalee fuqaraayu masaakiin yi moo doonoon fot dalukaayu gan ñeeg doxandéem yi moo doonoon moo doonoon loolu war na mën a delsi bu ñu nosee jàkk yi teg ko ci ay loxo yu wóor nos sunu armée lii nga xam ne ku génn at dafa la yóbbu ay jéego am na ci masha Allah waaye bëgg naa mu gën a nosu ni ñu ubbee armée li teg ko ci yoon fi ne loolu baax na tere fa yu bari yoo xam ne doon gàllankoor waaye ba tey nag boo duggee ci armée léeg-léeg takkusaan man ngaa toog diir bu gàtt ñu jullee fa fukki néew yoo xam duñu bokk ilimaan ju leen di jullee kenn duñu bokk su maanaam te néew yi dañuy toog di xaar kilifa ñëw di jullee néew ñu daal di am kuñ berfe ne kee bokku ci ki ko war a jullee ñëwagul moom loolu du nos mbokk yi man nañu am ilimaan yoo xam ne wut ay waxtu ñu xam ne waxtu sàngam ak sàngam ak sàngam ci bis bi ilimaan dana ñëw ku fi nekk ci néew mu jullee la sëñ bi ko fi teg kon sëñ bi la fa nekkal ku mu jullee mën nañoo am rafet jot ci moom ndax sëñ bi du tànn ku yées su boobaa ñëppay noppul danañ mucc it ñi nga xam ne ay zuruf moo leen imposé ñu julleem néew te mënuñ ko wala boog buñ ko mënee ñemewuñ ko li may wax nii yéen a mu gën a xam am na ñu jullee néew te mënuñ ko am na ñu jullee néew te ñemewuñ ko bu bu sëñ bi tànnee ilimaan nag kenn dootu sañu wax ne maay jullee néew bi kenn du ne sama néew diw koy jullee su boobaa danañ noppalu danañ mucc it ci ñaar jullee néew ci waxtu wu ñuy tere mbaa rob néew ci waxtu wu ñuy tere mbokk yi yëpp islam nee na. bu jant bi langee dañuy tere ku fi jullee néew dañuy tere ku fi rob ab néew bu jant bi langee te loolu léeg-léeg nit nit négaté yi dana tax ñu yeex koo jullee ba buñ ko jullee ci waxtu bu baax sax nag waaye rob moom faaw bala ñoo noppi ci bis jege te ba rob nañ ko ci waxtu bu ñuy tere te saxaaba yi ñoo waxoon ne bu jant bi lang dañuy tere jullee fi néew ak rob ko fi loolu nag nosay mën a tax imam joo xam ne moom day wax ne la bu cinq heures et demi jotee dinaa ñëw jullee néew yëpp mën nañ koo jullee rob ko balaa six heures jot ñëpp ñu rob ko ñu dem seen yoon boobaa ñu moytu waxtu yi ñuy tere ndax lii sëriñ Mame Balla wax léegi am na solo lu ñu fi gis rek day jàpp ne noonu la am na ñoo xam ne saa bu ñu gisoon ñu def fii waxtu wuñ jullee néew rek fu ñu demee seen dëkk ñoom la ñu dem ñoo xam ne fekk dem naa Touba ñu koy def kon noonu la kon laaj na nos ba nga xam ne li ñuy tere duñu dal alhamdulilah nosuk fi ni ñuy denc am na solo moom néew bu fi ñëw ñu teg ko ci ay loxo di waa daayira muqaddamatul xidma ji leen dokkeel ci loolu sëriñ bi jox leen ndigalul néew bu fi dikk bala ñu laa denc dañ xam yow kan kay di wóor ngay joxe ñu xam yow kan ak lu la lu la faat ginnaaw yàlla loolu am solo la dana tax ñu muccal ñi ñi nga xam ne ñu diine ñu diine sawarut ñoom la ñu bëgg a làqutu indi si leen Touba léeg-léeg ngeen dégg ku rocc ku bëgg fee rob nit ci yu mel noonu wala ku rey nit bëgg ko gaaw denc génn ci làqutu yépp am na njariñ waaye nañ ci mot na fexe ba jullee gi nag tegwaat ci yoonu itam boobaa dana tax mu gën a am solo waaye soxla na nit ku ñu nosal mbokk yi suñuy xasida taalifi sëriñ Touba yi nga xam ne lépp njariñ la lépp leer la lépp yiw la kenn ku nekk na nga koy def te jàpp naa ne wër deme noonu war naa tege ci loxo ñu xam xasida yi ñu war a jàng ak niñ ko war a jàng am na ñuy góorgóor lu baax nag di di di dafa yitte ci bëgg nit ñi jàng xasida yi njàng mu tegu ci yoon waaye nag góorgóor lu ñeen nit la ñooñu bu ñu leen dooleele Cheikh Mour Muntaha ubbi na ci bunt bu am solo tànn ak lenn ci njabootam di leen topp loo xasida yi ngir di ko mool sëriñ Cheikh Fatma ak sëriñ Khalil bokk nañ ci ñi saytu lool lu am solo la waaye mën naa gën a yaatu nag ba nga xam dañu am ndigalul balaa xasidaa génnati na jaar ci ñoom booba danañ mucc ci ku fortaatu ay bind jekki-jekki rek ni dama bëgg xasida goo xam ne dañ koy tënke sa yaqulu sufahaaw for aw bëy wu tàmbalee siin wu tàmbalee yaa wu tàmbalee xaf daal di jekki-jekki génne ko ni sëriñ bay def xasida gi xasida gu yees la goo xam ne day door a génn fekk moom moo ko dajal dëgg la bayiti sëriñ bee de waaye sëriñ bi toftale bu ko noonu loolu mi ngi ci xasida yi bokk yi ay nitam koy def te bu noosu woon loolu lépp du amati xasida gu kacheb kuréel googu nekkul dañuy jàpp ne jarul yoon yenn yi nga xam ne nit day rafet loxo rek daal di bind te nag mbir mi xam-xam la xam-xam la rafet loxo doyu ji sama bàyyi bindkatu xasida la woon doyu ji man jàngkatu xasida la doyu ji ba ci niñ koy jàngee jekk-jekk rek fent ab daaj nga xam ne bu ngeen seetloo fi mu ne daaj yi day nekk ala xisaabi maana yi te li baaxoon ñuy jàng xasida ci anam goo xam ne ku dégg njàng mi xam li borom di wax te loolu mën nañoo sos ay daaj yoo xam ne dana mel noonu ñun daaj yi miin nañ ko xam nañ ko waaye am naar wala keneen ab jullit boo xam ne bokku ci noonu daa soxla xam li ngay jàngalum doon dem naa ci barab ñu melal murid ne ñoom daal daal saa buñ naanee seen ñoll mu ñuul moomu dañuy fanaane yuuxu jàpp nañu liñ jàng yuuxu la jàpp naa ne nag waroon nañoo mën a nos ba nga xam ne njàng mi day tegu ci yoon gën a tegu ci yoon di jàng lu wér di jàng lu leer ndax ab resa ab risaala la sëriñ bi li muy wax ni du daaj bi rek ak yëkkati kàddu gu xum waaye ay wax la yu ñu war a dégg yoo xam ne foo koy yëkkati nit ñi dañ la war a déglu te wallahi ñi dégg nañ jàng xasida mu daanu ab jël bu xamoon la sëriñ bay wax jël bu dana gën a mel daaj bu neex bi rek moo ko daane fekk maanaam weesu na foofu loolu it jàpp naa ne am na solo ñu daal di jàng ñu kon soxla nañ ko ñu nosalit suñuy asak murid yaa ngi góorgóorlu di génne asak waaye dese naa nu suna léeg-léeg it am ay kuréel yu góorgóorlu samp dara waaye yooyu mbir kilifteef la mbokk yi bu yemee ci ay coobarewu rek mën naa bañ a jariñ li mu war a jariñ nit a ngi génne asaka nam ko génnee du nii mu jàpp ne wàcce na ko te wàccu nit a ngi génne asaka jox ko koo xam ne waru ko koo jox jàpp ne wàcce na ko te wàccu ko te asaka ngir mu wàcc la da nga koy génnee na nga ko war a génnee jox ko ki mu ko war a jox mu door la wàcc am na ñoo xam dañuy génne asaka dañ jënd ko ceeb séddale ko nit ñi asaka alali jàmbur la ku la joxeloo ku la ko jëndloo ceeb ku la wax ne la borom ceeb mooy aajoom ji gën a ñor ci moom bu dee xaalis génneel xaalis jox borom loolu nag bu amoon luñ nos kuréel ga dana ko mën a saytu Touba ca kanam ñu ngi leen di ziar mel na ne am nañ ci ay jéego yu ci dox waaye jàpp naa ne yu am solo yooyu yëpp bu nosoo ba tegu ci yoon diine dana jariñu nit ñi jariñu te lor ba waaye ay jaamu yàlla la yoo xam ne mbokk yi dañoo war a dimbale nit ñi ngir ñu dafa ko nu yàlla bëgg ba mën a jariñ waaye am na ñoo xam ne bëgg nañu lu baax lool at mu jot ñu génne asaka ndeysaan waaye ndeysaan asaka wàcc wàccagu leen ba tey ndax nañ koy génne du ni wala boog nañ koy jox duñu du ñooñu te réer nag du ngànt fa kanam yàlla boo lëggee loolu mat naa bàyyi xel mbokk yi soxla nañu it ku ñu nosal suñuy daayira li ñu am ci yoonu ci ay daayira bari na lool mën na am njariñ lool nag ndax mbooloo jullit bokk pas-pas dajaloo di dimbalante ndax mbooloo mu ne ñi defar addunaan ca mooy ñi xam ak ñi am ak ñi man ñetti nit ñu yor adduna saa bu mbooloo amee rek am na ñu xam am na ñu am am na ñu man ñooñu nag lu ñu song daan waaye ci kaw nag ñu nos kenn ku ne jox la wàccuwaay fa nga manee ñu jiitale la ko bu xalaat jotee ñu woo falasifa yi ñoom suñ kokk ñoom xalaat loo leen waaye bu laaj alal jotee ñu wuti borom alal jox leen bu jëf jotee ñu wuti borom kàttan yi jëf loo leen loolu mooy tax liggéey bi sonk kon nos daayira yi ñi war a jiitu di jiiti bañu doon ay moomeel yoo xam ne kuñ folle rek nga mer jiitu daayira bu ñu la folle rek nga mer daal di créer beneen loolu it jàpp naa ne bu nosu amoon danañ mucc ci loolu bi ci des it bari na lu ñuy def lu am njariñ fekk am na ay awlawiyaat duñ sàggane dañuy dajaloo ci barab waroon mën a dimbale taalibe yi ñu xam seen diine gën a xam sëriñ bi danañ góorgóorlu daje alal ju lu jeex waaye ña ci ña koy dajale jéemuñ dara ci seen diine te sëriñ bi nag loolu gën a lu sëriñ bi moom li ko gën a ñor mooy nit ñi nañ xam seen diine mën a jaamu yàlla kon daayira bi ne dafa yitteem bokk ci programme moom am programme culturel boo xam ne dañuy jàng di yare di dajale at yéen di jox yooyu bu nos amee incha allah taala am ay jëwriñ danañ ko mën a taxaw waaye nosool ñu suñu kër kër sëñ Tuubaa yi nga xam ne ay barab la yoo xam ne maanaa yu ko ëpp solo xamee su bala nga ko xam rek nga génn réew mi tumuraan fii la ñuy woyofale waaye ku génn bitim réew doon ab doxandéem liy gënoon sa yitte mooy ànd ndax kër sëñ Tuubaa am na fi kër goo xam ne boo dikkee ñu dalal la teral la booy dem jox la addiya kenn doo laaj yow kan waaye loolu nag bu nosoo ba nosu dana am jariñ loolu ndax danañ mën a fexe ba la fa war a am lépp ne fa ñu teg fa ay ndaw yoo xam ne dañ leen jàngal diine bañ xam ko jàngal leen tasawuf ba mu leer leen ñu di ko dund waaye làkk ya waa réew may làkk ñu tàggal leen te bañ man di woote maanaam ba tey jii mbokk yi murid ni ñu yokkoo mooy lan mooy bi tanaasul dañuy dañuy dañ ci suñ biir rek lañu yokkoo jàpp naa nag sëriñ bi li ko taxoon a jóg war naa doon geneen yokk mooy yokk mbooloo muy jóge feneen mu bari dugg si loolu la ko waral nag mooy ñooñu nga xam seenu lak xam seeni aada yóbbu fa yóbbu fa wooteeb sëriñ bi akum jàngale di ko fa tasaare nos ko ba nga xam ne at mu jot mën nga ne mbooloo danañ ko tuubee waaye lépp ci suñu jotaay ñunu neen ñooy daje di waxtaane mbaaxu sëriñ bi am na njariñ lool danañu dëgër waaye nag yokku yokku wooteeg sëriñ bi it am na solo te bokk na ci li koy waral bu ñu ko nosoon tàggat ay ndaw ci làkk yi adduna yëpp ginnaaw bu ñu leen tàggatee ci njàngalem sëriñ bi yebal leen ci adduna yëpp fu ñu dem nag nekk fa di woote nekk ci sëriñ Tuubaa yooyu def ko ay centre culturel ni mu nekk ay centre social ñu fay dimbale nit ñi ci day ni adduna di fi dindi ci wàllu ruux waaye di fa woote di fa tasaare njàngalem sëriñ bi ndax ku ko xam moom da nga ko bëgg te ku ko bëgg da nga ci dugg te loolu aw yu rek la loolu yi jàpp naa ne lu ñu soxla la mbokk yi lool ci biir réew mi ak bitim réew na tey bari na ay kër Sëriñ Tuubaa ci réew mi ba fa demee sa xol day sedd ay nit ñoo fa ñëw ñoo xam ne ay commerçant lañ ñu ngi xëy di liggéey de waaye bu timisee seen ab ab xalqa buy jàngale ma jaay la suñu la ñu am si si ngeen dem naa fa bis fekk fa gone yu jàmbaare nga xam ne saa bu ñu wàccee timis ba 10 heures ci guddi dañuy joxe ay bind di jàngale téere yëpp bu ñu xëyee dem liggéey loolu bu nosowoon am ne ci ay loxo am programme lii sëriñ bi tër ci daaraam ji la ca mën a àgg foofu ñu yóbbu ko fa insha allahu taala da nga gis mbooloo yu du jeex ci gox yu ne ñu fàq fa ñu ne ñun ay murid lañ waaye bu xamuñ Tuuba mosu fay ñëw te sëriñ bi nag li mu doon wootee loolu la yaa ahla barri yaa ahla bahri uju li barri bahri saxaay ñépp la bëggoon wuy si woote bi ndax woote yonent bi alayhi salaam la soxla nañu ku ñu nosal suñuy ndaje suñu ndaje màggal yeeg conférence yépp soxla na suñu kii waaye fi ne bu dara xëye bu ñu wootee ña fay jiitu mooy ñu fi wowul ña fay jiitu ñaare mooy ñu fi wowul feesal jotaay ba bu ña war a ñëw ña fa war a nekk ñëwee duñu am fuñ jaar te koo ne xajal di mu mer loolu ñàkku nosu la waaye bu nosu amee darañ dem ba ñenn ñu ne xam fañ war a ñu ne fa boobaa ndaje yi bu amee dana tegu ci yoon waaye nit nañ bokk ñu ne sëriñ bay ñëw fii ñépp gaaw ñëw dugg ba fees duñ bàyyee sax sëriñ yoonu mu jaar bu ñëw te ba gënee fii gis daje yoo xam ne bu ñu koy dajee barab ba ña fa war a nekk dong ñoo fay nekk buñ dikkee waxtu wañ war a ñëw lañuy ñëw lañ war a wax lañuy wax bu jeexee mu jeex kenn ku ne jariñ fii nag sëriñ bi day ñëw ci barab bëgg a wax ak nit ñi coow la raj-raj loo ba tax lam bëggoon du sotti loolu it ñàkk nos suñuy ndaje bokk na ci li ko waral bokk kon soxla nañ nosu boo xam ne bu daje amee tey ñañ fa soxla rek ñoo koy ñëw ñañ fa soxla rek ñoo koy ñëw kuñ fa wuwut day jàpp ne bu fa demee day am du am yiw ndax laa tafaxloo chaine bi xëyri is buñ dundoon loolu rek dañuy noppalu ci yu bare bare soxla nañ it mbokk yi ku ñu nosal suñuy dëkk murid yi li am ay dëkk yu ñu sos ci Sénégal kenn xamul nu mu toll ay jamono sëriñ docteur sëriñ Xaadim Sylla mas naa wax loo ñeenti téeméeri dëkk yu ñu xam recensé nañ ko jàpp naa ne ëpp na ko foofu diwéy léegi dëkk yooyu yëpp nag genn buum la sëriñ bee leen yilif ndax moo yilif la ko yilif ñooñu nag mën nañoo noso ci noo xam ne wenn doxin la ñuy doxe te daana am bu sëriñ bi masaan tere dar Touba da nga daan dégg la sëriñ bay tere Touba lañ fay tere bu Cheikh Abdoulaye Mbacké daan tere seetale dëkk bi ci yooyee fi duggoon te bokku ci kilifa bu mës di woot da nga naan la ñuy tere Touba lañ fay tere loolu nag mën nañ ko nos mu ne ci loxo yoo xam ne nii lu jógati àgg ci ñëpp ñu mën koo saytu nam waree su boobaa insha allahu taala lépp day gën a jat soxal nañu ko ñu nosal suñuy représentant ñuy teewal yoon wi ci biir réew mi ak ci bitim réew ba am na ñoo xam ne mënuñu jot ci Touba waaye seenu ñàkk a jot ci Touba du tax mu xañ leen lu ñu waroon a xam te xamuñ ko wala lu ñu waroon a jot te jotuñ ko soxla nañ kon bu nosu ba nga xam ne ni barab bu ci nekk ku xam li sëñ bi doon jàngale xam gu leer nañ ñi ma nga fa ci làkk wuñ ko soxla nag waaye koo xam ne it ni sëñ bi doon doxee lay doxee bu jaamu yàlla jotee dana mën a ànd ak nit ñi wan leen ni jaamu yàlla nii la maanaa tey toog di waxtaane baaxul sëriñ bi sëñ bi amul moroom am na solo lool mbokk yi waaye jëf ko moo gën dañ jëf luy wane ne sëñ bi amul moroom te mi ngi am na ci barab boo xam ne la ngay def yow ku dikk dana xam ne ah yow sa kilifa amul moroom ci li ngay def ndax taxawaay yu mat teyam ca nag loolu jàpp naa ne bu ñu nosee ñu ñu teewal ci barab yi dana tax loolu ëpp njëriñ loolu nga xam ne benn barab bu ci nekk day doon ak tuuba bi maanal kalima sëriñ ba fa nekk teewal fa sëriñ bi doon fa sëñ ba bi maanal kalima loolu jàpp naa ne soxla nañ ko lool te am na njëriñ lool it nag fii ci réew mi ak bitim réew ba kilifa yi jóg di dox fu ñu fi dem seen xol mën a sedd nga xam ne fu ñu fi jaar bu ëllëgee ñu yëg ne yokk am na waaye léeg-léeg ñu dem ci barab nit tuub dugg ci lislaam dugg ci yoonu murid ñu bàyyi ko fa ay at yu jekk ja gis ko mu génnaat ndax gisut ku ko teete te loolu mbokk yi mas'uliya bu rëy la kon sàmm loolu ba lu duggati ñu mën laa woon yoon am na njëriñ lool te soxla nañ ko soxla nañu mbokk yi lool lool ku ñu nosal suñu i'lam jokkoo yoon wi li mu am ci ay xabaar yu war a tas naa nañ bàyyi xel ne li mu baax le kenn xamul nu mu toll li fiy feeñ ci ay ngëneel ak yiw kenn xamul nu mu toll waaye ñaari kenn du ko yëg ndax ñun la ñor ñun ñoo ko waroon tasaare maal asaf nag jumtuwaay yooyu ay ay ay benn benn ak yu kuréel ñu ngi koy am di ci góorgóorlu waaye mbir mi dafa ëpp lool. dafa mel ne yoon wi moo waroon am bànqaas bu jëm ci lool nga xam ne tey bépp xabaar bu jóge ci sëriñ war a tas ci àdduna foofu lay jaar ñépp jot ci nañ ko war a jote nañ ko war a jote lépp lu ñu joxe foo lu jóge lépp lu fu jógewut dañuy xam ne wérul bi ci des it lu mat a leeral boobaa danañ ko leeral ñuy jàngale sëriñ bi lépp lu feeñ nit ñi da ci sikk sàkk di wax lu ci amut ab bayaan génn saxal ne lii la sëriñ bi jàpp lii la sëriñ bi wax wax di jeex waaye bu loolu kenn koy da nga ne fa nga ne na nga ko déggee nga koy waxee muy coow lu jeex léegi-léegi waxee fenkoo ñu ne lu sëriñ bi wax ñu ne sëriñ bi lu wax ñu ne lu sëriñ bi jàpp kon ay kuréel yoo xam ne tasum xabaar mooy doon seen liggéey di ko jàng di ko déglu di ko gis waxtu wu ne ñuy tasaare fiñ toll masalan tey Touba. li fi nekk ci ay jumaa ki jàkk li fi nekk ci daare alxuraan li fi mokkal alxuraan par at xabaar ëpp ko solo ci diine waaye kenn du ko yëg ba ki demb suñu fàllu jóob muy yëngu ci mbiri jumaa yi xadama téeméeri jumaa ak ñaar fukk juróom ñii ci dëkk bi ñu fi julli ajuma ndax mbokk yi xam ngeen dëkk bu toll ne Tuubaa dun lim dun am jumaa yu toll noonu waxuma jumaa yoo xam ne tur la waaye day fees dell ajuma jumaa yi ñu wax nii foo ci def ajuma da gëm ne soxla woon nañ ko boole ci am ci bari jataay yu xam-xam yu mel nii dañ ko fay dundal bu ramadan dikkee ñu fay woote di jàngale di yare tey bu fekkoon te am nañu tasukaay xabaar jataay yu mel nii ñu di ko tas adduna di ko gis adduna di ko gis lu am solo lay doon ba ci démb maa ngi seetaan sëriñ Abu Baraka maa ngi koy dokkeel ci naafila gu am solo gi def am mbokk mu ko dugal Facebook ay naar laay gis li ñuy laaj mooy bii dëkk ban la bii dëkk ban la ndax dañoo gis ay nit ñu ñuul ñuy wax alxuraan ji rafet noonu pour ñoom wërta mën a nekk kon ban dëkk la mbokk yi soxla nañ ko ñu nosal yooyu ndax ñu mën a jëm ci kanam lii daal lenn la ci li ma jàpp ne aajowoo nañ ko di ñaan ak di rafet njort nag ci ne Cheikh Mouhamadou Mountakha mii bu fi yàggee àggale naa lam yii insha allahu taala yépp daan saafaraw kon yàlla na ko yàlla yàggal yàggal fi ñëpp ñu koy jàppale maa ngi jégalu di baalu àq asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu